أنت سلام لاسي biñ bàyyeekoo fii ci ndar ci lañ def benn convoi jubali fi nga xam ne moo di Rosso Sénégal ngir dem ci première étape visite bi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdoul moom lay amal ren jii ca réewum Mauritanie te lu ni mel mu koy amal at mu jot ci ndigalu xalifa général de mourides bi ñu agsee fi nga xam ne moom moo di ci Rosso Sénégal am na kilifa yuñ fi fekk yoo xam ne ñoom kenn ku ci nekk waajal nga lu ni mel ngir toppatoo mboolem kayit yi nga xamante ni mënta ñàkk ngir ñu traversé mën a dugg ci territoire bu réew Mauritanie bi kayit yooyu yëpp yembe ci lañ traversé def benn convoi daal di dem Rosso Mauritanie ci bërëb bi it biñ fi agsee fekkaan nañ fi beneen mbooloo moo xam ne ñoom it ñu ngi doon xaar délégation Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr bii ci ndigalu xalif général des Mourides ñu gàttandu leen rawatina naar bi nga xam ne moom moo di Slim nekk koo xam ne at mu jot day taxaw taxawaay bu am solo ci ngan gi rawatina accueillir délégation bi ak it kóllëreem goo xam ne dox na ci diggante ak Touba. noonee it la ko Brahim Fall defee muy directeur bi nga xam ne moo jiite bag bi nekkee ci diggante Rosso senegal ak Rosso Mauritanie moom it lépp loo xam ne war na ci ay këyit ak jàppandal traverse bi def na ko ne sëriñ basiru Mbacké Abdoul Khadir bi mu agsee am na kàddu yoo xam ne Birahim Fall yëkkati na ko fa. ñun tey fii ci en ma qualité directeur général du BAC de maa ngi kontaan bu baax ci dikku porte parole xalif général Mouride sëriñ Bass Abdou Khadre ñoo ngi koy ñaanal yàlla wér ak talka te di ko wax ni fii ci Mauritanie euh, li ñu jot si sunu njiit yi président de la république euh, ministre de l' équipement de transport ministre de l' intérieur Walidi Trasa mooy que nanu nanu nanu taxaw fii gàttandu ko euh, jàppale ko ba mu mu jàll ci anam bu rafet aussi bu buy dellu ñu def les mêmes dispositions. donc loolu day firndeel ni rek euh, Mauritanie ak Sénégal benn benn benn benn réew la waaye surtout day firndeel euh, lu sëriñ bu mag bi seqoon ak euh, sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu réew mii di Mauritanie Mauritanie ak Touba benn la ku xam histoire Sarsara xam histoire Touba xam ni ki benn réew la donc xëy na dex gi rek moo ñu moo ñu moo ñu séparé waaye Mauritanie ak Sénégal benn benn benn réew la ñu fi nekk ay mbokk lañu ci diine ak ay mbokk lañu ci deret donc euh, ñoo ngi leen di wax ñoo ngeen ci seen si seen réew ñoo ngeen ci seen dëkk ñoo ngi leen di dalal ci ñun fii ñoo ngi fii nekk euh, ci ci ci lu yombal euh, visite bi jërëjëf. sëñ Mountakha jërëjëf ñoo ngi rafetlu liggéey bi ñoo ngi nuyu waa académie Minane yëpp ñoo ngi ànd tey ak sëriñ Bachir Mbacke moom sëriñ Abdoul Khader yor kaddu yoonu murit ñëw fii ci Mauritanie ci ndigalul sëriñ Mountakha Mbacke moom sëriñ Bachir moom sëriñ Touba di xalifa général de murit comme niñ ko baaxoo defee rek at mu jot ngir tànki jéego yi maamam di Cheikh Ahmadou Bamba euh, ku ne xam na ne Serigne Touba amoon na kóllëre yu rafet ak waa Mauritanie tax na ba nekkoon na ci ñoom jaxasoo woon na ñoom xeet yi fi nekk yëpp amoon na ñoom kóllëre yu rafet fii ci Sarsar la nekkoon fi la amee woon wérdam wi nga xam ne mooy wardu yoonu Murit nga xam ne day mel ne kóllëre yi sëñ bi am ak réew yeneen yi wutut Sénégal kóllëreem gi mu am ak waa Mauritanie moo ci gën a dëgër loolu nag moo tax ba xalifay sëñ Touba yi mu ñor leen lool ñuy gën a dëgëralaat kóllëre yooyu ak di leen li ko tàmbalee ci sëñ Modou Moustapha ba Cheikh Modou Mountakha mi fi nekk tey loolu naka jekk loolu mooy seen yitte tax na ba sëriñ Bachirou mi bëgg a mat fukki at ak at mu jot xalifa général de Mouride da koy jox ndigal ngir mu ñëw Mauritanie nemmee ko si wëllëre yi nemmee si xarit yi nemmee si taalibe yi nemmee si soppee sëñ yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp euh, ren jii gis nga ñu ngi koy doog a tàmbali euh, tey ji incha allah taala moo tax gis ngeen waa Mauritanie xamee nañ ko noonu tax na ba tertu bu rafet bi ñu tertu ko ko ci njiitul maire bi ak autorités yi nekk fii yëpp police gendarmerie douane ñi fi nekk ñëpp ngir fas yéene ànd ak moom visite bu yàgg lay doon dana jël état bi bari danañ siyaare daara yi yi gone yi jànge danañ siyaare borom xam-xam yi danañ siyaare nit diine yi tey nag ñu ngi ko bëgg tàmbalee ci banu deymaan lañ bëgg a tàmbale visite bi banu deymaan ku ne xam na seen diggante ak sëñ Touba ñoom lañ njëkk a dalal cat saara ñu fas yéene yendu tey dëkk bu ñuy wax biiru touriste kilifa gu mag ñu koy wax wala yiwul mahmoudan wala yi moom nga xam ne moom baayam ak maamam ak mbokk yëpp sëñ Touba lañ nekkaloon ba nu deymaan liñ seq ak sëñ Touba bari na moo tax fa lañ ko bëgg a tàmbalee def fa benn kendal loo xam ne xam-xam bu bari bari dana fa génne incha allah buñ fa àggee. biñ defee mboolem formalité yi ci Rosso Sénégal ak Rosso Mauritanie kayit yëpp yemb ci la délégation bi bàyyeekoo ci Rosso Mauritanie jubali fi nga xam ne moo di première étape visite délégation xalifa général des Mourides Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bassirou ci réewum Mauritanie te sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr jiite délégation bi ànd kook boroomi xam-xam ak kilifa yu takk lool